Maimouna Bousso ñu ngi lay nuyu maa ngi lay fay bu baax Fatou Thiam. am mbégte àndaat ak yow ci euh, waxtaan wi euh, di la sargal ci weeru jigéen ñi ñu dugg mu di mars yow yaa jiite mouvement force citoyenne nga bokk yi itam euh, ci kuréelu jigéen ñi nga xam ni ñoom la ñuy wax femme leader de l'opposition ngeen génne ab communiqué demba di sàkku ci kilifa yi ñu teggi loxo jigéenu Pastef yi yooye la jigéen demb retour de parquet la ñu am ñuy njort tey ne daanu leen yóbbuwaat ci palais de justice ngir ñu janook procureur alors alors euh, seen càkkuteef woowa fan la toll. maa ngi lay nuyu di la sargal yow itam di sargal mbooloo jigéenu Sénégal di ñaan ne euh, tey bu fekkente ni suñu euh, suñu mag yooyu suñu rakk yooyu dem nañ ci kanamu procureur ñu ngi am yaakaar ni dinañ leen bàyyi ñu ñibbi seen kër hmm. ndaxte defuñu lenn loo xamante ne yoon mayu leen ko sunu sàkkuteef boobu nag dañu ko def rek ndaxte dañu doon ay jigéen Euh, du càggine li nekk ci opposition kese hmm. mais dañu namm ne gisuñu lépp dara loo xamante ne jigéenu Pastef yooyu def nañ ko lu dul lu leen yoon may mooy ñu jóg seeti seen njiit mooy ñu wone seen naqar def ko nag ci yar ak teggin def ko ci ñàkk yàq dara donc gëm nañu ni leen constitution may loi mënu leen ko mënu leen ko tere hmm. donc loolu moo tax ñuy ñaan dana procureur bi ak ñi nga xam ne ñoo yor yoon ci réew mi teggi seen loxo ci jigéen ñooñu te bàyyi leen ñu dellu ci seen liggéey ak ci seen i njaboot. bu weesoo communiqué boobu ndax dafa am beneen jéego boo xam ni def ngeen ko ngir euh, ñu bàyyi jigéenu Pastef fii Euh, ñu benn jéego ndax ñun dañu jàpp ni suñu wareef déjà mooy euh, bind bataaxal jo yët leen ko nga xam ne leen taskatu xibaar yi ko itam autorité yi bataaxal bi yónnee leen ko ba ci ñoom te jàpp nañu ni ministre bi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu justice euh, jot nañu bataaxal boobu leneen li ñuy ñaan nag mooy mbir yu mel ni dañu ko fi dara di gis lu bare te dañu jàpp ni wax dëgg yàlla toujours répétition yi amalul njëriñ askan wi parce que ñooñu ñoo leen tas ñu dellu seen i kër tey dafay gën a noppal justice bi parce que am na leneen lu suñu justice war a liggéey lu dul ñu jàpp ay nit yoo xamante yàqu yàquñu defuñu dara pour ëllëg encore ñu taxaw di leen laajal bàyyi ndiggandiku hmm. léegi bu fekkente ni bàyyiwuñ leen nag yéen euh, jigéen opposition bi lan ngeen nar def ñu ngi jëm ci wii mars di bëccëg bi nga xam ne moom la ñu jagleel euh, jigéen ñi euh, notamment seen àq ak yelleef ah balaa 8 mars dañuy njëkk a talaatay ndeer. muy le 7 mars. Mhm. ñu jàpp nag ni bu fekkente ne euh, yoon teggiwul loxoom ci ñoom euh, bu talaatay ndeeree dinañ waxtaan ak sunu ay naatango mais dinañ ñu ci dégg itam te dinañ ñu ci gis parce que nag du ñu nangu ñuy toroxal benn jigéen surtout nag ci langue politique bi parce que ren jii 8 mars dafa nekk euh, bis boo xamante ne ci li nga xam ne mooy mooy mooy thème bi. Mhm. mooy sunu taxawaay ñun jigéen ci ci espace politique bi. suñu kàddu ci vie bi donc ay jigéen du ñu nangu Euh, ñuy jëm ci 8 mars ñu war a am taxawaay bu mag ci espace politique war a am taxawaay bu mag ci leadership féminin ñu leen di teg loxo te jigéen ñi duñu jóg tan rek ay ay ay ay ay action jàpp nañu ni bu fekkente ne fii ba talaatay ndeer fii ba le 8 mars leen loxo dinañu dégg nag ñun nga xamante ne ñoo nekk ci espace politique bi dinañu teg ay jéego yu am solo pour seen libération. alors ñu ubbi foofu prox ndollu su ndaw wax ci jigéen ñi ak seen nekkin ci Sénégal ndax gis nga ci ay coppi activité yoo xam ni xëy na gën naa ñoŋal euh, seenu nekkin. waaw di ñu mën a wax mooy ci euh, euh, ci atum deux mille vingt président Macky Sall jox nañu lu am solo loo xam ne jigéen ñëpp ndamoo woon nañ ko muy bi nga xamante ne voté na li ñuy wax ne mooy criminalisation du viol ñu jàppoon ni loolu acquis la boo xam ne ñun ñëpp dañu ko yàgg xeex. ñun euh, jigéen ñi nekk ci organisation yi mais jigéen ñi nekk ci espace politique bi jàpp nañu ni euh, euh, jigéen dootuñu ko mettital te dara du ci am mais xalaatuñu woon nag ni loolu ñu joxe ñu ci loxo ndeyjoor dinañ ko nangu ci loxo càmmooñ jàpp ñu woon ni dinañu jël loi bu toll noonu di ko politiser parce que c'est la première fois ñu ne dañuy jël dossier criminalisation du viol bëgg a teg ci ndoddu homme politique loolu dañu koy naqarlu parce que loolu dafa nekk loo xam ne tey bu ngeen seetloo euh, position wu organisation féminine yi nga xamante ne ñoo nekk mal parce que bu doon seen sago tey moom ñoo njëkk a jóg taxaw mais ni mbir yi demee tax na ba mu am ni euh, ñuy wax euh, naqar ci sunu put yi ba tax parce que xalaatuñu woon ne xeex bi ñu xeexoon ba jot ci loi boobu pour ñu dellu tey dañuy indi ci situation yi beneen jigéenu Sénégal ñëpp nangu nañu ni dañoo nekk ay jigéenu jàmbaar yoo xam ne ci secteur informel bi hmm. ñoom ñoo ci gën a féetee ñoom ñooy jóg fajar nekk ci njaay mi ñooy nekk ci kaw tali yi ñoom ñooy nekk ci ci ci ci ci ci liggéey yu métti yi nekk ci tool yi te gis nañu nag euh, Covid bi bi mu ñëwee coono bi nga xamante ne couvre-feu yi ak restitution yi jigéen ñi ñu ngi koy dund loolu itam ñëw jàpp ne waroon naa mën a ñàkk hmm. ñuy wax ne tey en tant que jigéen bëgguñu chaque huit mars rek ñu def plaidoyer mais lii la am lii lañu amul dañu bëgg pour une fois pour toutes autorités yi euh, au lieu ñu yem ci ay slogan ak ci ay loi ñu dem jusqu'au bout parce que jigéen ñi dañu war a am accès à la terre jigéen ñi dañu war a am formation jigéen ñi dañu war a am euh, encadrement bu mat tout rek dajale leen ci ay ci ay bërëb jox leen ay microfinance euh, ñu tàccloo leen chaque jour balaa ñuy mën a fay loolu sax dañuy mujj doon ay esclave politique loolu dafa war a dàkk parce que jigéen ñi dañu am àq ak yelleef boo xamante ne weesu na rek di ay ay ay ay loi par rapport à aux Nations Unies di ka ndamoo di tiitaroo dafa war a nekk loo xam ni dafa war a dem la souche mm. mooy jigéen bi ndaw bi nekk école mën a jàng ñu mën ko protéger mën a éviter mu am nekk ci mariage précoce mën a éviter mu nekk ci ay violence mën a éviter itam mu nekk ci précarité parce que précarité boobu dama ciy ñëwaat. Mhm. bokk na ci li tax euh, feuilleton judiciaire bi ñuy dund am na lu lu ci am lu ci indi loolu parce que bu fekkente ne jigéen da nga jàng te sa jàng euh, euh, réussirul te amuloo liggéey bu mat amuloo formation bu mat da ngay doon cible boo xam ne da ngay neex a manipuler. Mhm. da ngay neex a utiliser loolu nag dañ koy métitlu parce que tey en tant que ay jigéen bëggoon nañu bu fekkente ne ay politique ñu ngi xeex ci seen biir ñu bañ ñu ci tudd bañ ñu ci laale ñu bañ a nekk ñun jigéen ñi nga xam ne encore une fois dañuy utiliser comme ay objet mhm. de liquidation politique. Mhm. alors ñu ñëw justement ci mbirum Ousmane Sonko bu nu sukkandikoo ci xibaar yoo xam ne Libération moo ko joxee Sonko jox na ndigal avocat maître Khouraïchi Ba ngir mu décharger convocation bi nga xam ne jox nañ ko ko mu war wuy ji ëllëg juge d'instruction bi mu mel ni kon euh, dañ ko njort dafa nar a wuy ji ci sa xalaat. waaw li gën mooy bu fekkente ne na ba nga xam ni euh, tey toll nañu fu nga xamante ne euh, hmm. Ousmane Sonko yoon daf ko war a dégg euh, bañ benn violence bañ a encadrer situation boobu hmm. Ousmane Sonko mu ngi ne dafa woote droit à sa résistance may wax ne loolu ba tey bu wuyjee sax terewu ko cee nekk hmm. parce que moom bu xëyul xëy rek ne d'accordul ci justice bi xëyul xëy rek ne moom àndut ak justice sénégalaise dafa am fu ay naataangoom jaar euh, fii la Karim de jaaroon jàpp ne justice dina wax yoon fii la Khalifa Sall jaaroon ñu ne ko justice dina dina liggéey li mu war a liggéey kon bu fekkente ne gis na ni machine judiciaire bii bépp adversaire politique bu dugg ci seen i loxo ñu faagaagal la mm. moom c'est tout à fait à son honneur mu taxaw dès à présent weddi justice boobu tey kay justice moom la ñuy ñaan mu am taxawaay boo xamante ne dina juboole Sénégalais yépp xam ni yoon am na ci réew mi nit ñi weddi li ñuy wax machination judiciaire justice moo war a nag tëddee njaaxaanaay justice moo war a wax droit kese te bañ a topp Euh, machination judiciaire bi machination politico judiciaire bi te tout simplement setal ay loxoom loolu justice bu ko defee dina yëkkati dayoowam bu ko defee dina jubóog askanam bu ko defee dina tax ba génération bi di ñëw dinañu gën a am kóolute ci justice. Hmm. jàpp naa nag ni bu fekkente ne loolu la euh, Ousmane Sonko décidé def lu rafet. parce que ñun ñii ñu ngi ci dox ay jéego en tant que opposition parce que jàmm lañu bëgg. Hmm. lépp lu ñu bëgg xeex suñu ak ak suñu yelleef dañu ko bëgg a def ci jàmm ak salaam ay kilifa diine itam ñu ngi ciy dox ay tànk ñeneen ak ñeneen ñu ngi ciy dox ay tànk jàmm te nag nit ki boo nekkee njiit moomoo lépp sa bopp. am na lu Ousmane Sonko moom mais am na loo xamante ne tamit ñeneen ñi ñoo ko moom ci moom. Hmm. kon bu fekkente ne ñaan yooyu ak procédure yooyu ak démarche yooyu am nañu effet ci moom ba mu décider dem wuyu ji du nu mun lu du rafetlu ko. Mhm. alors Maimouna Bousso ay jamono ci mbirum Karim Wade notamment jege woon nga ko lool ñu bari sax doon la dëkkale ca parti démocratique euh, sénégalais euh, nga taxawoon ci xeex bi tey ni nga taxawee ci xeexu Ousmane Sonko bi ndax mënees naa njort nga lëngoog moom ci wàllu politique. waaw comme ni ñuy musul woon duggee rek ci parti PDS te mm. xeexoon ak ak yëleef Karim Wade mooy créé yi te ba tey di continuer di exiger ñu respecter ay droit wam droit wu mu mën bokk ci élection yi mm. di ko di ko ñaanal itam Khalifa Sall noonu la koy defalee Ousmane Sonko mais il faut que nit ñi xam ne ñun suñu engagement engagement citoyen la ñun jóguñu pour jàppale doomu aadama pour nekk ci parti mi li ñu bëgg a jàppale mooy dëgg li ñu bëgg a jàppale mooy képp koo xamante ne am nga yéene jiite réew mi ñu bàyyi la nga bokk ci yoon bu jaar yoon parce que loolu itam moom muy mën a taxawal suñu démocratie moom muy mën a dooleel suñu démocratie ñu wax ne itam ñu ngi ñaan force de l'ordre yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk en face ñu def preuve de retenue parce que euh, jëli Ousmane Sonko wala convoqué ko bu amee violence bu ci entaché wu ñoom dañ ci am seen responsabilité état moom moo war a doxal jàmm Ousmane Sonko bu fekkente ne nangu na dem wuy ji bu hmm. fekkee ay nitam dañoo génn di manifester nañ leen ko nangul parce que nañu xam ni démocratie ak liberté ak ak ak ak fi Sénégal toll ak fi ñu jóge moo permettre ay nit ñu militer ci parti bu ñu amee naqar ñu wone ko ñoom itam nañ ko def ci discipline loolu yëpp dafay tax ñu ñaan jàmm ci réew mi ñu ñaan itam bis yii di ñëw Euh, ñi nga xam ne ñooy faatu ci mbas mi mu wàññi ko mu dàkk parce que am na leneen lu ñu war a taal tey ci 2 mars bi nga xam ne moom mooy journée bi nga xam ne mooy def ak ci coronavirus bi am na Sénégal leneen lu mu war a taal dugul ay xeex ak xuloo ak tojante ay bopp mhm. kon ñu ngi ñaan autorités yi ñu delloo si seen xel poste de l'ordre yi ñu bañ a def benn brutalité ñooñu Ousmane Sonko yi ñu respecté seen ay droit de résistance seen ay droit de manifester parce que constitution moo leen koy may ñu encadrer loolu yëpp te Ousmane Sonko bu demee ci yoon yoon liggéey def liggéeyam euh, tuuma yi nga xam ne ñun ñëpp daa jàpp nañu ne ay ay accusation la ay ay piège la ay complot la ñu teggi ko ci kawam bàyyi ko mu dem këram bu ko yoon woo soxlaa mu dem wuy ji ci jàmm ak salaam loolu moo gën ñuy nekk def dëkk bi ci tension boo xamante ne du amal nit ñi benn njëriñ. Mhm. alors sànq waxtu wee ñu xojoon lool fi mu ne sax jeex na waaye euh, ñu dem ci benn simili rek euh, xayma nga def ci yorin wi ñeel euh, mbasum coronavirus gestion bi tey la am at bi Sénégal amee kaawam bu njëkk di Covid 19. waaw damay féliciter suñu corps médical bi parce que lu mu metti metti quand même euh, dégg naa ci seen journal bi ngeen di wax biru trente quatre mille et quelques cas mhm. foog naa ni loolu itam seen jàmbaarte moom moo ko moom moo ko waral mhm. may profito rek di lancé benn message autorité yi ñun dañu yàgg wax ne bu nit ñi jël seen pas-pas yëpp teg ko ci vaccin yi parce que vaccin yoo xamante ne amul benn réew bu ko matal euh, prévention bi dafa sooxee parce que sensibilisation ba tey des na parce que ba tey am na gëmul feebar bi tey am na ñoo xamante ne ñemewuñu vaccin bi mhm. ñuy wax ne boobu ba léegi ñu ngi wax ne ñun nekkuñu fi pour wax on est contre le vaccin mais dañu ne vaccin bi kese du solution bi mhm. parce que même nit ñi vacciné wu dañuy continuer di takk masque dañuy continuer di def geste barrière kon autorités yi nañu gën a continuer ci sensibiliser ci ñaax nañu te vaccin yi itam ñi mhm. nu koy séddoowee ñuy wax ne rafetlu ko parce que vaccin yi dafa nekk loo xamante ne même bu lim bi matoon dañu ne dafa am ñu war jiitu ay cibles prioritaires yi nga xam ne dañoo féete mag ñi nga xam ne dañu yor ay feebar hypertension diabète ak leneen te ñu gis folklore bi nga xamante ne moom moo woddu vaccin yi ñu gis ay autorités yoo xamante ne dañu koy def sax mbiri tiitaroo naan man ñàkku naa kee ñàkku na kële ñàkkuwul loolu itam inégalité sociale la ñu ci gis mm-hmm. parce que ñi nga xam ne yoruñu amuñu ndombal tànk gisaguñu leen ñu riir ñu jox leen vaccin yi kon nag gannaaw deux cent mille vaccin matul dara te même trois millions yi séentu jotaguñ ci hmm. kon ba ñu ciy jël ay ay ay mbir di ci maye ba président itam ñu ngi koy ñaan mu defaraat ay kàddoom hmm. envers askan wi parce que nag xaalis bi ñu jëndee vaccin yi du xaalisam du xaalisu euh, euh, poosam sunu alal moom la ñu jël jëndee ko vaccin yi gannaaw sax nee nañu dañu ko may te ñoom ñu wëlbatiku ne jëndee nañ ko deux milliards deux cent te Diouf Sarr waxoon ne don de la Chine la loolu yëpp mën nañ ko yokkal ci seen liste njuuj njaaj mais liñ koy ñaan mooy taxaw du duñu araftu comme ku yor sa ay doom yoo jur bu ngeen vacciné wul ma maye ko loolu kaddu la yoo xamante ne mënul dugg ci xolu sénégalais yi te mënul encourager sénégalais yi ñu vacciné wu mhm. sénégalais yi bëgg nañu vacciné wu naam bu fekkente ne vaccin yi doy na bu fekkente ne vaccin yi moo leen di aar mais nañu ko jox ñi koy yellool te ñu arrêté seen mbiru politique politicienne yooyu ñuy def ku nekk naan man vacciné wu naa parce que loolu taxul sénégalais yi vacciné wu mhm. sénégalais yi tax ñu vacciné wu mooy ñu xam ne lii mooy li leen di aar mooy ñu xam ne lii mooy seen gëneel te loolu nag liggéey la boo xamante ne prévention la mais du wër di di wër plateau yi di wanewu mhm. loolu moo mën a tax loolu am parce que itam bu fekkente ne jël nañu place ñi nga xam ne ñoo ko gën a yellool loolu injustice lay dural ba tey jërëjëf Maïmouna Bousso ñu ngi lay gërëm yaa jiite mouvement force citoyenne amoon nañu mbégte mu rëy dalal la euh, ci matinalu réew mi FM tey mun nañu laa teewluwaat ci réew mi point com ak réew mi officiel ñu ngi lay gërëm maa ngi leen di gërëm di leen sant di ñaanal réew